ayca mbàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ci wasaare làmb di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay eh, di leen jaajëfal képp koo xamante ne da ngay seetaan wasaare làmb ñu leen di jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xamante ni ànd ngeen ceeg wasaare làmb waaye wéetuma ci benn yoon ndax jàngat làmb bu ñu ko waxee xel dem ci Père Birahim jaay moom mi nga xamante ni mooy indi combat yi décortiquer ko wax ci ba Sénégal gépp xam ni kat Père lii muy joxe ay leçon la xam-xam na ci xale yi nga xamante ni ñoo bëgg a doon champion ëllëg Père maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf maa ngi lay wax billahi min shaytaan yi bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani li hmm. eh, maa ngi lay nuyu di kontaan trop ci dajawaat ak toog wax dëgg yàlla di nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan wasaar ñëpp ak ñu koy sawoo ak ñi abonné wul bëgg abonné ñëpp nag ñëw nag ñu bokk nag seetaan di sottante xalaat parce que àddina li koy jëmee kanam mooy sottante xalaat rek waaw taxaw nañu fii mais ñu taxaw fii yëpp taxaw ne lu ñu wax rek noonu lay demee waaw suñu xalaat la ñuy wax yéen am ngeen xalaat ñu ci waxtaan di ci sottante may nuyu Bas di nuyu Adama di nuyu Ousin di nuyu waa bureau yëpp ak kàkku ñeem yëpp maa ngi leen nuyu waaw ñoo bokk bokk liggéey bi yëpp maa ngi leen nuyu daal. comme da nga wax ci wàllum xalaat ne ci xalaat lañuy ñuy wax euh, ñu xool ni bërki démb moo Ndiaye président bu bees bi di Bira dafa woo ñi nga xamante ni ñoo ŋànk làmb mu njëkkee ko ci euh, ménagères yi woo euh, nga xamante ni ñooy mm-hmm. promoteurs yi keroog mu woo képp koo xamante ni ménageur nga ak ak ak ak ak responsable écurie yi Euh, nga dem fa euh, lan nga fa jëlee. waaw keroog li ma fa jëlee mais managers yi bokkuñu ci woon. Hmm. managers yi dañu am seen bisu bopp. Hmm. te responsable écurie yi la woon. Hmm. ñi nga xam ne ñoo yor école de lutte ak écurie yi ñooñu la woon war a dajeeg ñoom. man nag bokk naa ci ñi nga xam ne yor naa école de lutte. ma président école de lutte la euh, sàkku xam-xam. kon waroon na maa mën a teew parce que maay président ba. wala ak secrétaire général bi Fallou. yow maa ngi koy nuyu de passage Fallou ne. bi ma demee nag comme Bira gan la ci mbir mi gan maanaam du gan ci làmb ji waaye gan la ci nag ndomba tànk yi ñu ko jox. Mhm. ma koy ñaanal yàlla na doon njiglaayam. yàlla na yàlla def mu réussir ci mandat bi. Mhm. parce que yaakaar la ñu am ci moom. ba jox ko bi yàllaa ko fa tegit mhm. mandat bi yàlla rek koy jeexal wax naa ko keroog. kon tey yàlla na ko réussir ak ñi mu àndal. ñëpp bokk xalaat bokk lal waaw mais keroog jour la boo xam ne bii man bi ma ñëwee dama ne tey du ma jël parole déglu laay wax parce que boo gisee ñu bari nañuy toog di si ginnaaw di wax di toog di wax nga xam boo toogee déglu rek di nga xool ñi nga xam ne bu ñu toogee dinañu wax la ñuy wax bu ñu nekkul loolu la ñuy wax te ma gis ñu bari ñoo xam ne jii la ñuy wax ci ginnaaw la ñuy wax ci kanamam foofu bu ñu génnee ci mbedd daawuñu ko wax. mooy li wolof naan sa wax démb bu tey sa dëggu des na. voilà dëggu des na looloo ci am nag daf ci bari nag. Mm. du mën a ñëpp la nag waaye ña fa toogoon ñëpp ñu ci bari la ñu doon wax ca ginnaaw ak la ñuy wax tey du benn. Mm. kon nag biraa maa ngi lay dénk nga xeppi sa bët te xool mhm. te jéem a jaar ci siraatul mustaqim mhm. siraatul mustaqim moom ñëpp xam nañ ko ko xamul baat bi firi na boppam mhm. mooy nga jaar ci yoonu njub képp ku la indil dëng te tegul ci yoon wala indil la loo xam ne ni sexe yi nanguwu ko dindil ci teel parce que bu ko dindiwul tamit xamul lu mu koy mujjee indil jël bu rëy xamul lu mu mujjee Alioune Sarr rek la ma fa waroon joog te Alioune bu dëgg dee dëgg rek moom it wax dëgg yàlla ah, amoon na personnalité bi amoon na fulla bi am fayda bi nañu waxan dëgg parce que amoon na personnalité am na fulla am fayda xëy na nag am na loo xam ne lii tamit bon nit di doo toog ci mbooloo di wax lépp ci li nga xam ci li nga yaakaar la ngay wax li nga xam rek waaye amoon na personnalité ak fullaam ak faydaam ba li mu bëgg def dina ko def li mu bëgg wax dina ko wax te itam boo bëggee déranger ci biir wax wax ko loo xam naka su noonu ci biir mbooloo te tàng tàng ba koy faj loolu amoon na loolu kon ku mel noonu nag boo ko remplacé yenu nga yenu bu diis. waaw parce que da ngay ñëw mate ko dafa ñëw mate ko ci fulla ci fayda ci comportement ci lépp nga koy mate remplacé Alioune Sarr yomb na yombul waaw da ngay am fulla am fayda am loolu côté boobu foofu laa ciy wax. moo tax bi ma gisee ma gis ne tey naa déglu ñi doon wax ci biti ak ñu doon wax ci biir tey ma gis ñi doon wax ci biti ak lañ doon wax ci audio yi yëpp tey jii ma gis ñu beneen xar-xaram la ñu feeñee xàmmee naa leen moo tax ma ne tey du ma wax. waaw père li ma jaaxal mooy ci biir daje bi. Hmm. Euh, presque juróomi nit yi njëkk a wax. Hmm. ña ca topp ñëpp. Hmm. même kàddu yooyu la ñu la ñu mujj di continuer. te bu ñu ko bàyyiwoon réunion bi noonu lay mujjee demee. réunion yi d'habitude noonu lay deme xam nga tax muy demee noonu. dañuy bokk feebar. nit bu ñu fekkee bokkee jàngoro. buy demee genn garab leen di faj. genn garab rek ñu mën a faj. tey jii ñun bu ñu amoon benn soxla tey ji ñu ñeent ñi ñëpp. dégg nga ànd tey ne seeti président te suñu soxla yëpp mooy dañu war a ndimbal ndimbal la ñuy wuti bu ñu boo xasee wax kay doy na boo xësee wax doléance bi doléance boobu moom la Bachir am moom la Adama moom la Birahim moom moom la moom la Bachir kii euh, moom la Abdou Khadir kon kay bu kenn waxee rek boo xaale nga ñëpp moo tax daanaka bu école de lutte ak écrit yëpp ñoo bokk feebar maanaam kenn bu ñu waxee dëgg gi war a dem rek bu kenn waxee daanaka wax bi sax war naa tëyu te loolu dama yaakaar ne dañ ko waroon a bind lépp def ko mémorandum dégg nga di jox ko jox ko yëkkati pré kii bi jox ko ko jox ko président bi nga xam ne bii mooy bilaat teg ko ci loxoom léegi moom it mu sàmbar xool liñ ci mën a def ak li liñ ci mënti def ak li liñ ci mën nangu ak liñ ci lu mën nangu loolu moo doon yoon mais répétition ku ne bëgg a jël parole ku nekk jël parole te répétition rek lay doon amul njariñ amul njëriñ xëy na mënuñoo woo ñëpp mais gis naa ci kenn koo xamante ni tey euh, mënoon nañ ko may nopp xam nga Jax Jax production waaw Jax dégg naa turam waaw jégg xam naa ko parce que defe naa mas na fi tëggal ko waa làmb Saalum Saalum ba may juumul daal mhm. waaw waaw keroog dama ko jël fee ca terrain adressé waaw mu wax ay wax yoo xamante ne wax yu am solo la mhm. mu doon wax kàddu yoo xamante ne lépp njariñu làmb la wax na ba ni làmb mhm. mun nañ def mun nañ di am na luñ koy defee mun nañ am un milliard yoo xamante ni sponsor du koy jël teg ko ci table bi mais idée boobu nag nekk na idée boo xamante ni keroog bi mu ko waxee képp kuy seetaan Wassare Lamb ànd nañ ci xam-xam boobu. Hmm. moo taxoon ma ne est-ce du jot ministre bi woo ko wala président Bira Sène ngir ñu archanger ay kàddu. mën a mën a jëmale làmb ci kanam. mais Jax moom. Hmm. promoteur la. Hmm. du promoteur. promoteur jour promoteur am nañ seen journée. parce que Bira tam ni mu def day dafa woo école de lutte yi ak écrit yi ñoo la boole. woo manager yi à part. dégg li ma la woo entraîneur yi à part. woo promoteurs yi à part ku ci ca biir booba ci ca la bokk bu demee édi boobu na ko fa génne joxe ko. mais promoteur yi li ma ci jaaxal dafa am promoteur simple. waaw am promoteur boo xam ne lutte avec frappe lay def. waaw promoteur yi daa mel ni convoqué wuñ leen de. xëy na dina leen woo laa yaakaar xëy na dina leen woo parce que moom woote bi amu ci ma samba amu ci dem ñëpp la war a woo. Hmm. parce que moo jaboote lamb yëpp dóor ak simple yëpp moo ko jaboote. même ministre bi sax leen de. Ah. promoteur simple yi. waaw loolu dégg naa ñoom ñu di ko kaas waaye nag loolu mënumaa dugg ci waxu mënumaa dugg ci biiru am Mama Tarba mm. maa ngi koy nuyu de passage mm. ak ndaw waaye nag wax dëgg yàlla la tax woowu leen moom xaw ma ko te duma ci dugg mm-hmm. waaw waaye daal bëri dóor bi daal mm. woo na ñi mu ci war a woo yëpp ñu ci bari bokk woo leen laaj wax leen waxtaan ak ñoom li mu bëgg a def li mu bëgg a def mm-hmm. li mu bëgg def la leen wax waaye waxu leen na ndax luñ lan laa bëgg ñu def ko dafa woo laajte man li ma bëgg a def lii laa ak laay def mm-hmm. waaye waxu la laaj la du la woo laaj na nan nan laa war a def man bokk ci la ma ci li ma gis ak li ma wooyee waxu ma ne man lii laa bëgg de nan laa ko bëgg a defee de dafa maa woo wax ma li mu bëgg def la mu wax tamit noonu noonu la bëgg a def dama ko rafetlu waaw ah, rafetlu jàk si moomu daal am na fu mu bokk am na kuréel gu mu bokk moom ñoom Pape du Fall ak ñoom ñoo bokk kuréel loolu mu wax lu ñu am njariñ la am na njariñ na ko teg ci taabal bi ànd ak seen journée mu tax ko loolu rek la amul solo waaye xam làmb dinaa la wax benn wax ma di ko wax internet ñëpp di ma dégg. Mm-hmm. fekk dañu ci làmp pour mu taxaw jub dina jafe. mooy làmb. ñaanante ak gàppa ñaanante soxorante. lépp ci ci lépp nag ci làmb lépp nag. làmb promoteur. yéen a moroom borom jàmm promoteur. Mm. parce que kenn ku ne yaa ngi am sa benn sa agent bu nekk sa ginnaaw di jéem a gor say tànk bu tey nga ànd ak kii bu subaa nga ànd ak kii di gor tànk ñeneen ñi su taxawee combat nga gis ñeneen naan ko mun laa nit ñaari carte mun laa nit ñetti carte yow de sànni nga sa xaalis yaa ngay xeex promoteur boobu muy benn ñaareel ba mbëru mu mag yéenewul mbëru mag moroom jàmm mbër mu ndaw yéenewul sa moroom mbëru jàmm maanaam ménager yéenewul moroom moroom mais mbooloo mu mel noonu nag na la ñuy ànd di am jàmm mbooloo moo gis mu demee noonu jili ay tolof tolof rek lay ay tolof tolof rek la dañuy ànd kay xam ne ñoo bokk gaal gi dégg na ñaan mucc ñun yëpp ñu mucc hmm. waaye bu fekkee da ngaa ñaan sa mbubb bi mucc ah yow tam mucc du mucc dooy muccee loolu tax gaal gi ministre baa ngi jaar fu ne di def pour defar mu ngi jaar fu nekk pour jéem làmb ji dox mais làmb ji pour mu dox lu jafee jafe jafee jafe la parce que soxorante bi ak iñaanante bi ak waxante lu ñaaw bi ak kenn ku ne yaa ngi luñ bët sa yi morom di waxal sa lu ñaaw te la nga mbóodi ya nga ak fa jaar bu yàlla ne woon ni jant bi musiba dal la. wallaahi wallaahi loolu ñëpp la. Mhm. jaar waaye dafa am ci àddina. Mhm. waaye kenn ku ne dafa suturaal moromam. dégg nga waaye jaar ci kaw nit di wax nit lu ñaaw. bu ko ku bëgg taxaw taxaw dëggoon alalam nga ko gor tànkam ku jiitu nga dóor pardon mu daaxan keneen ñëw jaar bu kii ànd ak tey mu am bu daanoo nga ànd ak keneen kale boo ànd ak kii tey moo am bu subaa kee daanoo nga ànd ak moom loolu ba kañ loolu jógul ci làmb loolu nag moo gën a rey suñu làmb mais fekk àndoon nañu nekk benn ku nekk am sa bis ñëpp yéene la jàmm ah li Gaston Mbengue di wax maa ko nuyu wax leen tàppe xol yi ànd benn yéeneente jàmm loolu bu ko newoon ci làmb dana gën a dox dana gën a dox lool kenn ku ne dina ci lekk sa wërsëg parce que làmb ginnaaw gee yaatu kon booloo loon doon boo xamante ni Père wax na laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yëley nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor